mbégte lay doon toujours ak contentement jàkkaarloog yéen euh, ami internet univers info pour vu servir euh, tey nag cœur ouvert dafa changé de cap boo mu gisee xam ni tey euh, booy jëmp laa rappeur laa ndax dama seet si ñoo xamante ni c' est des piliers du rap galsen c' est des du rap africain muy Positive Black Soul Grand Degeti ak ki nga xamante ni mooy Grand Awadi Suppandanaan international fas yéene waxtaan ak ñoom ci lu bari loo xamante ni duñ ko bàyyi. parce que cœur ouvert lañ koy waxee ki est un coin de discussion ak man ak samay invité on va parler de tout sans rien se cacher les yeux dans les yeux bala ñoo sori rek dañ leen di bàyyi ñu nuyoo yéen bàyyi ñu kan mooy njëkk a nuyoo sax ci yéen ñaar euh, le grand maa ngi jaajëf delloo ziar bu wér delloo maa ngi leen nuyu ñëpp nuyu nuyu waa cœur ouvert ah c'est ça une univers et l'émission cœur ouvert ak ñëpp quoi Euh, mais grand maa ngi lay ziar. waaye delloo ziar di la remercier ci déplacement bi. Euh, donc on va commencer juste ci suñu première question ci seen euh, single bu bees bi nga xamante ni génne ngeen ko dëgg la qui a marqué d'ailleurs votre retour l'idée est venue comment. L'idée est venue de, naturellement parce qu'on s'était mis ensemble à Saint-Louis d'y réfléchir, euh, parce qu'on préparait un concert là-bas à PBS, mais aussi on réfléchissait sur euh, plein de choses de la vie et on s'est dit que, écoute, c'est le moment de faire un, un, un, projet parce que voilà on en avait envie et euh, voilà on avait plein de musique qu'on nous avait mis à disposition c'était dit bon écoute nañ def ça en parce que lii la ñu xam lii la ñu bëgg xam nga tu à des moments da ngay euh, comprendre ne euh, lii mooy sa mission tu vois ñun hip hop bi moo ñu may lépp positive black soul surtout moo ñu may lépp e donc euh, dafay dem ba à un moment da ngay am benn genre de contrat de confiance yow ak sa public mais aussi contrat de conscience avec euh, tout ce qui t'a fait avec ce que tu es profondément donc noonu la ñu décidé xam ñu déglu benn euh, ci ci son yi c'est fait par benn boy bu tudd benn flow bu nekk euh, Bamako ñu déglu benn son franchement mu yóbbu ñu fa sori et puis ñu génnee li nekkoon suñu xol moment boobu quoi donc voilà et euh, le premier son qui est sorti du prochain album mooy lu yàgg dëgg la donc ñu tuddee ko dëgg la. mais bu ñu déggee son bi ak euh, li nga xamante ni yéen a ngi koy contenu bi li nga xam ne yéen a ngi koy wax ci biir on se pose la question est-ce qu'il a été vraiment euh, question d'une vraie rupture entre vous deux euh, déggati loolu looñ boo ñu siy tontu lan nga ñu siy wax. Hmm, boy bi daf ma doon fonto ma chifaay ko mu mere ma après bon. chifaay ça veut dire da ngeen doon xeex. non pas xeex dama ko doon dóor. dama ko dóor non soyons sérieux. soyons mais bon. Euh, je veux dire, euh, xam nga comme ni ñu koy waxee gars yi Positive Black Soul on a créé ce groupe mais ce groupe ne nous appartient pas yow yaa ñu ko gën a moom ak keneen ak keneen keneen askan bi moo ko moom patrimoine bi le pays le continent le monde. donc euh, à un moment aussi ñu toog bi ñuy waxtaanee affaire yi tout nous on s'est rappelé des bons moments et soxla loolu ñuy toog parce que lu nekk si ñun la xam nga lu jóge si yow loo créé depuis des années mooy ne day dund si yow ñu toog on a senti cette nécessité de refaire des choses ensemble. Et quand on parle de rupture, c'est vrai que professionnellement, chacun a embrassé une carrière solo. et du tee ku si nekk si sa carrière solo bi nga si yëngu looy def da ngay yëgal keneen ki te album solo boo gis ñu ñaar keneen ki teew na si donc ce qui veut dire que peut-être Positive Black Soul en tant que tel n'était plus actif mais nous deux il y avait toujours ce lien là Ok, bon, maintenant de manière professionnelle, euh, au niveau du, du, du, groupe Positive Black Soul, peut-être qu'il y a eu des désaccords. On a pr préféré prendre du recul, euh, garder ce lien fraternel, voilà les plus professionnels du Koyak, parce que l'olmo au solo. Mais là, on a fait ces retrouvailles, et quand on dit retrouvailles, c'est beaucoup plus entre nous et le public, nous et vous. nous retrouver avec vous. Parce que même si Positive Black Soul n'était plus vraiment actif et puis tout ça, euh, le lien, la complicité, l'amitié, elle était toujours là entre nous. ok donc looloo waral nag ñu def euh, affaire bi quoi. mais recul recul tamit dafa yàgg après 19 ans ngeen soog di retrouver wu loolu yàgg na aussi tamit. pourquoi ngeen xaar 19 ans après pour que ngeen mën a retrouver wu defaat beneen son pour bégal soppe yi. non du 19 ans parce que entre temps on a fait des sons ensemble mel ni euh, on a fait euh, sant yàlla on a fait on a fait beaucoup. pas positif Black Soul. Non, Santa Yala, c'était dans l'album de Awadi, mais par exemple, il y a eu l'album des 25 ans, Back Again. Euh, voilà, ça c'était Positive Black Soul, c'était un hippie de six titres. Euh, voilà, le, le, le plus important, c'est qu'on faisait beaucoup de scènes. On en a fait euh, ici et en dehors du pays, Positive Black Soul. Et, euh, mais en même temps, on s'est bien rendu compte que PBS euh, a un côté légendaire, tu vois, warul latte aussi. C'est pas tous les jours le war a génn xam saa yu génnee moom il que mu nekk lu lu lu sérieux lu diis lu lu donc euh, on en est conscient donc euh, voilà et puis il faut laisser le temps faire les choses. et pas gëmoon nga ni un jour ou l'autre di ngeen mën retrouver wu tur boolewaat euh, li nga xamante moom mooy Positive Black non non puisque je te dis entre on le faisait souvent on nous appelait souvent même à l'étranger parce qu'il y a des gens qui avaient envie de voir Positive Black Soul même ici il y a des il y a des gens qui nous appelaient pour faire des des événements donc euh, mosuñu am doute. qu'on allait refaire des projets ensemble c'était juste un problème de calendrier euh, on est tous très busy xam nga euh, parce que bon machallah nos carrières solo ont, ont eu quand même du succès donc euh, il fallait que à un moment aussi je pense que le Covid aussi nous a aidés puisque personne ne tourne on est là xam nga <laughs> on est on était on a que le temps on a que du temps de de se retrouver de waxtaan et de faire de la musique Et quand nous on se retrouve et qu'on a du temps, la première chose qu'on fait, on fait musique la ñuy def donc euh, voilà je pense que Covid bi s'il a un seul truc positif c'est qu'il a permis de de faire que on ait du temps pour liggéey ci album bi et je peux vous dire que titres yi ñu defar jusque-là on est très très content parce que sound yi ànd na ak jamono musique bi neex na xam nga et puis xol la ñuy demee quoi. xam nga léegi avant dañu nekkoon ci compétition avec beaucoup de groupes léegi amatuñu compétition léegi dañu am euh, ñu ñooy jox suñu bopp euh, ay challenge pour de la bonne musique xam nga une musique constante des textes constants xam nga sans pression ça n'est bon écoute euh, on est en concurrence avec tel ou tel non la seule concurrence c'est avec nous-mêmes pour est-ce que nous-mêmes on est capable d'aller plus loin ci ci ci ci liggéey bi ci recherche bi xam nga pour indiwaat dara parce que xam nga quand tu fais de la musique pendant longtemps il faut chaque fois savoir se renouveler donc comment PBS va se renouveler loolu mooy suñu challenge tu donc euh, c'est am na excitation am na adrénaline xam nga c'est neex na quoi parce que musique il faut mu neex soo koy job il faut mu neex xam nga am challenge nga am. euh, euh, cet esprit de de de d'aller plus loin de savoir se surpasser se dépasser se surpasser et bon ci loolu la ñu nekk et pour le moment on est très très content du résultat qui est en train de sortir. le résultat est là mais Dégueté, si je peux revenir un tout petit peu en arrière qu'est-ce qui a causé votre séparation qu'est-ce qui est dû à de prendre du recul parce que tu sais euh, travail de groupe Et un travail personnel, c'est différent. Les sensibilités aussi sont différentes. Par exemple, moi, quand je viens en tant que Positive Black Soul, quand l'un de nous a une idée, on le fait par rapport à l'idéal du groupe, par rapport au feeling et à l'image et à la couleur du groupe. Mais maintenant, à un moment aussi, c'est vrai qu'après, euh, c'est de la lassitude. On s'ennuie parce que c'est le même truc qui revient. Et puis, voilà, quoi, on a envie de se renouveler, de se recréer. Donc on embrasse des carrières solo et chacun développe son style. Parce que Borrelais, c'est deux styles différents. Et quand on se met ensemble, ça se complète, c'est ce qui est positif Black Soul. Mais Awadi a son identité, De Giti a son identité aussi, et on avait envie de faire ça. non kooku moom xew yoon nekku si yoonu kenn nekku si <laughs> c'est-à-dire que chaque fois faut pas chercher euh, les les faut pas rentrer dans les détails le diable se cache dans les détails je crois que des gens quand ils sont ensemble Euh, et qu'à un moment on les voit plus ensemble et qu'un beau jour on les revoit ensemble, la meilleure des choses à faire, c'est euh, de ñaan mu wéy et puis euh, s'en féliciter, s'en réjouir, xam nga et bénir, leur envoyer des bénédictions quoi. Quand euh, je vous donne un exemple, par exemple, quand un couple divorce, ben ce qu'on retient de beau dans cette histoire, ce qu'on devrait retenir de beau, en tout cas moi personnellement, c'est que c'est les bons souvenirs C'est la famille qu'ils ont fondée, c'est ce qu'ils ont bâti ensemble. Je ne cherche pas à savoir pourquoi. Mais ces gens-là ont leur raison. Et si un beau jour on les voit revenir, ça veut dire que ces gens ont appris de la vie, qu'ils ont su euh, aller au-delà de leur propre personne, qu'ils se sont remis en cause et qu'ils ont pris la bonne décision. Yeah. Mais 30 ans de carrière, qu'est-ce que vous retenez ce qu'on retient 30 de carrière mooy ay voyage ay rencontre ay expérience ay euh, l'impact boo xam ne am nañ ko ci ci musique hip hop dans le monde euh, et surtout dans l'Afrique Euh, je ne parle même pas du Sénégal. Donc, impact Bobo, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, 31 ans après, euh, le hip-hop est une grosse réalité. Amna, euh, suñu ay moromu doom yoo xam ne tey ay star la ñu ñu ngi ciy dundal seen njaboot donc loolu yëpp tu vois mbégte la contentement la c'est aussi c'est euh, victoire la sur la vie parce que c'était pas facile c'était pas évident ñun bu ñuy commencé gars yëpp dañu jël on nous avait pris pour des pour des losers yoo xam ne euh, ay mag yu ñàkk fayda la au lieu ñu dem jàngi ils sont là dine dañuy rap lan mooy rap xam et aujourd'hui 31 ans après on voit des boys yoo xam ne c'est des patrons d'entreprise yoo xam ne bon ils ont été inspirés par ce que les vieux là avaient fait il y a 30 ans te tey ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi koy def xam dans toutes les règles de l'art et euh, ils vivent dignement de de de de ce métier donc ça veut dire que bi quoi donc quelque part euh, on surtout les rencontres nag il y a des belles rencontres euh, qu'on a eu partout dans le monde xam et puis euh, il y a que des on ne retient que les beaux souvenirs et il y a plein. Euh, euh, Dégaté lan nga ci gën a retenir si 30 ans comme ni nga ko waxee rek 30 ans c'est toute une vie ah. ans nit judd na si ba takk si jabar am si njaboot donc di si sant yàlla loolu la ñuy njëkk a def sant si yàlla jàng nañ si on a fait de belles choses on s'est trompé sur certains choix. on a eu de l'expérience. C'est l'apprentissage, quoi. Et comme il l'a dit, euh, cette, grâce à cette musique qui était notre passion et dont on a fait notre profession, on a parcouru le monde. On a parcouru plus d'une quarantaine de pays en Afrique. En tant qu'Africain, quoi que c'est une bénédiction, tout le monde n'a pas cette chance. On a fait pratiquement toute l'Europe et les États-Unis. On a rencontré des gens magnifiques d'horizons vraiment divers, quoi, d'horizons différents. des gens qui ne sont pas seulement dans la musique, mais on a rencontré des grands de la musique, euh, on a rencontré des personnes qui sont dans le monde, tout ça, et des personnes aussi lambda, mais avec qui on a beaucoup appris. Donc euh, voilà quoi, ce, qu ce, qui, ce qui est une bénédiction parce qu'on sait qu'au moins euh, tôt ou tard on s'en ira mais on laissera quelque chose au moins aux futures générations. bu ñu waxee ci future génération bi damay ñëw ci wax bi nga xamante ni internet yi dañ koy faral di wax que ni booy yóbbu nañ leen retraite jaratul ngeen di ngeen di ngeen di forcer parce que seen musique booy booy ñoo leen dàq musique jamono ji awadi loolu lan nga ciy tontu. loolu gis-gis la bon yow su dee gis-gis la xëy na dëgg la et puis loolu la ñu ñaan booy. non mais loolu la ñu ñaan suñu la nee booy ils sont meilleurs que toi mais ku nekk sa doom da ngay da ngay ñaan yàlla mu mu mu gën a xarañ ci lu muy def ça veut dire que éducation bu ko jox baax na ça veut dire que base bu nga ko jox baax na donc loolu sant yàlla la yàlla la ami internet je vous le rappelle Amar doo wàññi sa son bi ami internet je vous le rappelle euh, on est euh, sur cœur ouvert avec euh, les deux yi nga xamante ni ñoom c' est des pionniers du rap galsen c' est des du rap africain macha allah ma toog ñoom di waxtaan ak ñoom ñu ngi si deuxième partie bi nag deuxième partie bi on va parler de l' effet Covid instant yi nag président de la république ak bi nga xamante ni moom mooy gouvernement am dañu tere bépp yëngu-yëngu boo xamante ni artistes yi dañ ko doon def ñu bëggoon ci xam yéen seen position d' abord lan la. ñun suñu position mooy chaque Sénégalais a le devoir de travailler on nous a dit il faut apprendre à vivre avec le Covid kenn waxuñu il faut apprendre à mourir avec le Covid donc ñun lu ñuy wax mooy il faut ñu mën a liggéey def euh, parce que loolu ci loolu la ñuy mën a dundal suñu njaboot euh, te mën nañ ko def en respectant yenn mesures barrières yi donc euh, mën nañ ko def dans des endroits yoo xam ne on va limiter le public ñu ngi koy def ci restaurant yi ci hôtel yi te je pense pas que jusque là nee nañ euh, ne musique euh, mooy tax euh, Covid di circuler donc rassemblement ak dankaloo bi la ñuy bañ mais je pense que dans les restaurants wala dans les hôtels wala ci place yu ndaw yu ñuy jouer justement nit ñi dañuy toog c'est pas des gens qui son collés et donc euh, loolu dañ koy respecté yàgg nañ ko respecté mën nañ ko respecté donc loolu moo tax ñu ne au gouvernement que ñun dañu bëgg liggéey comme tous les autres comme tous les agents des ministères lu ñu bëgg mooy liggéey nekk ñu fi pour ñaan leen xaalis dañ leen on demande juste à pouvoir def suñu liggéey dignement sans def nañ ci ay jéego yu bëri waxtaan nañ ak ministre de la santé ba jëbal ko benn protocole sanitaire ministre de l'intérieur ministre de la culture donc am na ay waxtaan yoo xam ne commencé nañ ko depuis il a quelques mois donc c'est avec une grande surprise qu'on a vu que gars yi ci décision boobu gëm nañ ne deuxième vague am na mais ça ne veut pas dire que euh, tout le monde doit arrêter de travailler je pense que l'Afrique doit savoir tirer profit du Covid et ne pas baisser les bras Et parce que ce qui se passe aux États-Unis du lu xew Sénégal ce qui se passe en France du lu xew Sénégal lu xew Afrique général donc aujourd'hui si on a une avance sur l'histoire il faut en profiter xam nga il faut pas que le secteur de la culture ak économie culture euh, aujourd'hui que tout ça s'effondre parce que l'économie de la culture ce n'est pas seulement le côté folklorique de la musique c'est toute l'économie c'est-à-dire les restaurateurs les ñuy jaay yére ñuy les les les les gens qui sont dans la sécurité il y a beaucoup beaucoup de métiers que ce soit dans la musique il y a plein de métiers les techniciens les instrumentistes les chanteurs les managers les whatever whatever y a trop de métiers la presse, tout ça c'est un ensemble qui crée une économie de la culture économie culture boobu si elle tombe c'est des milliers de personnes qui sont au chômage qui sont dans la misère et qui tendent Donc euh, il faut faire attention parce que loolu on appelle ça une bombe sociale. Donc voilà pourquoi ñuy alerter gouvernement bi en leur disant nañu waxtaan comme ça qu'on prenne des bonnes mesures parce que nous sommes assez adultes mûrs. Euh, on n'a pas envie d'être contaminé ñun d'abord, on n'a pas les autres. Donc on sait qu'on peut travailler en respectant les mesures barrières. Donc euh, il faut qu'on apprenne ça. Pour moi, c'est ça, apprendre à vivre avec le Covid. Sinon la décision boo xam ne bu buñ qu'ils ont prise ça s'apparente à apprenez à mourir avec le coronavirus d'accord Djeguety ci mois de décembre lañ daan gis artistes si macha allah lañ daan ëpp ay programme lañ daan ëpp lu ñuy yëngu euh, ren nga gis situation bi ni mu demee aussi yow ban position nga ci taxawee position bi mu si taxawee mooy nekk bon <laughs> kenn si ñun ñaanuloon lii parce que comme ni nga ko waxee mois de décembre bi mooy mois bi nga xamante ne pas seulement artistes yi ah, mais beaucoup de business mais les artistes c'est vrai que c'est un, mois béni pour eux parce qu'il y a beaucoup d'événements donc si la ñu mën a renflouer seen i caisse mais bon bu ñu leen ko xañee nii sous un prétexte boo xamante ne y a eu une seconde vague alors que ñun presque année bi yëpp joué wuñu donc euh, dafay mel ni artistes ñoo ñooy affaire bi quoi non c'est faux ce qui est faux ñu ngi ñuy collé affaire boo xam comme si nous on était fautifs de la deuxième vague ou quoi que ce soit si on était responsable de la deuxième vague plutôt c'est tout à fait faux et booy tere dangay tere ñëpp dañ bàyyi affaire yi ñuy def xam nga ne way musique lii am na sax ñoo ay milieu sax yoo xamante ne gars dañ leen ne diffusion de musique waxuma la prestation artiste diffusion de musique dañ ko fay tere loolu c'est quoi ça ok donc amul sens bopp amul genn moment bi ngay wax loolu yéen a ngi am ay événement di jël yeneen musicien di leen fay ñu leen di jouer yeneen musicien di si teg seen bët loolu mooy lan loolu da ngeen ñu bëgg a xaajale da ngeen bëgg indi zizanie suñu biir wala quoi que ce soit heureusement que ñun on a plus de hauteur et plus de maturité pour bañ a dugg si piège boobu mais affaire kumba am ndey kumba amul ndey yooyu rafetul rafetul tey rafetul ëllëg ñun dañuy liggéey ñoom dañuy xëy ñun dañuy xëy ñoom dañuy am ay ñun aussi ñun fitna fu mu mës a amee dañ ko xeex ñun ñoo njëkk a taxaw xeex lii nga xamante ne mooy corona ba créé benn collectif bu tudd daan corona. ok donc on est au fait de la situation xam nañ bu baax nu mu demee léegi nag bu ñu euh, bu ñu jël comme bouc émissaire quoi wala di jëm woon ak ñi ngi def seen liggéey ba gis nga booy tere nañ même sax artistes yi ñu jee nii nii mel ni artistes yi ñoo fi indi corona indiwuñu fi corona. ñoom corona nu mu fi duggee xam nañ ko ils ont des experts xamante ne def nañu étude xam nañ nu mu fi duggee. ok donc euh, c'est pas à nous de payer les pots cassés. loolu alerte la boo xamante ni ñoom lancé nañ ko mais mercredi gars yi dañuy def rassemblement les acteurs de la culture est-ce que yéen di ngeen fa dem. oui bien sûr que dinañ fa teew je pense que tous les acteurs de la culture war nañ fa teew parce que c'est notre métier qui est en danger euh, en tout cas ñun dinañ fa teew te dañ invité aussi ñoo xam ne ils sont dans le même cas que nous xam nga des gens comme les lutteurs. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous, on est, on est des euh, porte-parole pour notre société. Quand on voit que les lutteurs, quand je vois tous ces borom d'olé là, euh, ils vont faire des années blanches d'union d'absent métier. Je me dis, ni si on ne leur permet pas de faire leur métier, mais les <laughs> borom d'olé là, il faut pas gagner <laughs> mer alou. donc voilà donc loolu lépp laay woowee bombe sociale boo xam ne il faut la gérer avant que ça n'explose. il faut gérer euh, la bombe avant que ça n'explose. On va juste poser notre toute dernière question avant même de tàggatoo ak mbokk internet yi nga xamante ne ñu ngi doon toog di ñu seetaan euh, euh, quels sont les projets. les projets là à court terme comme vous voyez bon nous euh, euh, déjà on travaille sur l'album. ok il y a l'album Positive Black Soul qui va sortir euh, si 2021 bi. Oh. Euh, waaw loolu la ñuy ñaan dinañ def tout dinañ def suñu la kàttan bu mu garab voilà quoi ce sera un album ouvert ce sera un album boo xamante ne voilà euh, ku ko déglu di nga xam ne c'est du Positive Black Soul mais c'est du Positive Black Soul 2020 ce qui ne veut pas dire qu'on va dénaturer suñu musique mais dañ koy améliorer. ok et entre-temps aussi j'ai aussi un album solo qui va sortir donc cette année Positive Black dina fees seen bët quoi c'est-à-dire que y aura du Positive Black Soul et Tribord Babor comme ni mu la wax sànq ñun compétir ñu ak kenn de suñu bopp la ñuy compétiral ah, ah amin amin amin amin ku nekk moom si li ngay yëngu ndam rek nga siy ñaan quoi donc yàlla nañu si yàlla may ndam may ko képp ki nga xamante ni si li nga yëngu bëgg nga si ndam yàlla ko yàlla defal de façon on a mis tous les moyens de notre côté ba nga xamante ne album yi bu si génn moom day cartonné et puis voilà quoi loolu mooy kii à court terme et y a un autre single Positive Black Soul buy ñëw temps yi tamit. Euh, Awadi à part l'album c'est quoi le projet. Non, je pense qu'il t'a dit, hein, c'est, c'est les tournées un peu partout, voilà. Album égale tourner au Sénégal et tourner un peu partout dans le monde. ami internaute c'était votre émission Cœur ouvert euh, ma leen di jox rendez-vous très bientôt sama caméraman bi nag tey la am xam nga bëggoon naa yéen aussi tamit ngeen souhaité ko happy birthday muy ndaanaan Amath la tudd quoi. donc Amath comme tey sa bés la donc euh, happy birthday dundal 111 ans sans ordonnance et euh, voilà beaucoup de bénédictions pour le parcours et le métier que tu as choisi waa Amath waa di la wax happy birthday bés bu dellu si moo neex lépp li ngay ut yàlla na ko yàlla defal yàlla na doon li gën si yow et puis yàlla ko teewaay ati ati ati at at yàlla may la gudd fan wér yaram njaboot ju barkeel ak mujj bu rafet ak ndam si lépp loo dugg. voilà cat rek laa lay ñaanal yàlla musal la ci di remercier aussi Abdou Ba mon ami mon frère merci beaucoup li nga ma yombalal ponkal li nga xamante ni macha allah bàyyi nañ seen activité yëpp toog ak man nii ak temps ni mu chéré maa ngi leen di remercier waat encore une fois de plus euh, te di la wax que ni album bi boole ma si man damay ànd ak yéen ci album bi incha allah lépp loo leen soxla rek ci côté média ci côté communication je suis à votre disposition incha allah. merci beaucoup c' était tout pour votre émission Cœur ouvert ngi leen di jox rendez vous ak beneen daanaan mais avant ça dem leen ngeen abonné wu. ah boo leen paree ngeen bës ci euh, cloche bi ñu def notification ngir bokk ci njëkk am suñu vidéo yi leen di jox incha allah merci beaucoup et à la prochaine.